bu loolu paasee ñun Sénégal yëpp nañu xam ne jàmm moo ëpp solo hmm. jàmm aljanna bu amutoon jàmm nit ñi dinañ kenn du fa bëgg a dugg fu hmm. amul jàmm ñëpp di bàyyi sa alal uti jàmm di bàyyi say kër uti jàmm di nga bàyyi sa otu uti jàmm hmm. kon bu ñu fowee suñu réew ñun lu ëpp ci ñun nag ay jullit lañu lu ëpp ci ñun tamit ñu gëm yàlla ay ñu gëm yàlla lañu te ku nekk xam na ne yàlla moom lu baax rek la santaane. Mhm. lu bon masalan lay tere ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal. Mhm. léegi nag dafa am lu may ñaawlu parce que ñun pauvres yi ñun miskin yi dañ ñoo génn ci réew mi boo seetee maire yi tey lii ñu def tey ku amul xaalis moo mhm. noo doon maire mais déedéet man Souleymane lii tey xaadimul Quran di miskin buñ ma joxoon mairie Mbour tey. bu ma sàccee triande dina dinaa yomb a gis hmm. mais mën na jaay yamba mën na sàcc mën na triande yor ay milliards hmm. ñëw laajte mairie jënd nit ñi jox ko mairie bi bu ko hmm. defee bu lekkee ay milliards ëllëg ak si biir masalan du feeñ kon nag li li li taaluuta la ko yàlla waxoon wa zaadahu bastatan fil mi wal jismi loolu xam-xam ak njub kon nag Sénégal atte nañ nee nañ pauvre amu fii amu am amul cër ci Sénégal amul xel mënta jiite jubul parce que lu ko lu ko waral alal. Hmm. te yàlla li mu dogal tey ñi ëpp capacité gën a yëkkatiku ci réew mi. Hmm. ci diine ji ci àdduna bi ay doomu pauvre lañ loolu la yàlla dogal. Hmm. beneen bi ci des. mooy ñun béykat yi ba tey. na xaw gaaw tuuti nag waaw dama gis président ñu ne day jël ay milliards. di ko jox élèves yi mu bàyyi daara yi te gis na milliards yooyu na ko yóbbu ci mbay mi. hôpital yi na dem ca àll ba courant bi bi na dem ca àll ba. Mm. yal yàlla indi jàmm ci Sénégal. amiin waaw wasalaamaaleykum. wasalaamaaleykum jaajëf jaajëf bu dee am na keneen asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. maa ngi la ziar. Omar Sow nag xoolal dama lay ñaan rek bu fi wax benn tur wala ngay euh, jéem a def politique ngir yàlla rek dégg nga te nga gàttal ko. amul benn problème. waaw euh, de ñaari point li gàtt laa bëggoon sànni. Hmm. bi mooy coow li am fale télévision nationale RTS. Hmm. wax dëgg la coow lii métti na trop te eh, eh, ba léegi dégguma autorité yi mais lii la ministre wala le président de la république ba léegi di wax ci affaire bi ñu ngi koy ñaan en tant que citoyen sénégalais ñun xam nga RT ñun ñëpp ko bokk. Mhm. problème bi fa am foofu laa am am na problème loolu kenn mënu ko lamlaame na yo na yónni foofu ay gëstukat wala moom en personne bu recevoir tout le personnel wala le syndicat de la RTS hmm. jéem a trouver une solution puisque lu fa am laa la wax ñaaw na trop ci métti na ci loolu ñaaw na ci deru Sénégal hmm. puisque man keroog dama ko seetaan ci benn télévision internationale ñu si wax hmm. vraiment loolu moom kii na trop beneen bi mooy Euh, nguuru Macky Sall képp ku ko taxaw tey wax carrément béykat yi gisuñu seen bopp ci affaire bi laa la da ngay wax lu la neex mais nguuru Macky Sall lu mu produit ay matériel agricole laa la wax dañ koo triplé triplé triplé tey jii fépp foo xam ne amul petit matériel dañ koo triplé fépp amul ay tracteur yóbbu ne ko foo la benn bu ñaar ba ñetti ba fukk Sénégal nag dafa yaatu du mbay mi kese moo fi nekk léegi-léegi nga dégg étudiants yi di kaas nga dégg enseignants yi fali di kaas nga dégg transport yi di kaas donc hmm. Sénégal actuellement mu ngi ci ay di dem ba nguur Macky Sall dafa nekkal askan wi taxawal askan wi hmm. rawat na mbay mi fii àll balaa la ñun de waa Fouta bi dañuy baax baax soo nekk le président de taw Ba kilo gerte ku xalaatu laa la fokk gerte laa la jar la eh? li ngay politique moo gën a bëri yow yow li ngay politique moo a bëri yow déedéet bu moo gën a bëri de déedéet waaw dama lool politique ko kii laa la waaw yaa xam ku nekk am fi ngay foote laa la mais politique yi fii mënoo fi def dara sam politique laa wa wax. Hmm. mais nguur Macky Sall dafa taxaw béykat yi laalo la wax rawatina fii laa la wax. fii loolu yaa ko wax de waaw dama la wax. Eh, loolu du du kese man maa loolu loolu ay. béykat yaa béykat yaa ngi jooy de wax dëgg yàlla béykat yaa ngi jooy de. balaal man dara xëy rek sotti du à cent pour cent mais en tout cas ma la war a def laa la koy def lu mu ci mën xam nga li ñuy a ñaan hmm. nañ ko ñaan vraiment yéene bu mu am ak le ministre l' agriculture yéene bu mu am pour Sénégal dem kanam ci agriculture yàlla li yéene boobu mottali ko laal man loolu am ba ci wax yàlla defal bu dee am na keneen ku nekk ci liñ bi ab asalaamaaleykum allo salaamaaleykum ñu la ziar Seydou Nourou Ba aha Sayer Tambédou Sayer Tambédou man la ziar yaa ngi am jàmm alhamdulilah wootee waaw maa ngi wootee fii Sandaga Dakar. man hmm, waa foofu. ñëpp a ngi fii bon dama bëggoon a wax rek euh, di ñaawlu ba pare li nga xam ne moo xew Guinée. Hmm. parce que képp kuy applaudir lool rek. Hmm. dafa fekk ne yow aspiré pour nekk président de la république wala nga nekk benn autorité si réew. ndaxte su fekkee ne coup d'état fu mu am coup d'état mën na amaat. te ñun homme politique yi nga xam ne ñun dañuy yëngu ci politique ngir jiite réew mi. kon kenn warul euh, xalaat wala ngay tëkkalee wala ngay méngalee li xew foofu. Mm-hmm. Sénégal nag bu Guinée yal na fi yàlla wàccee jàmm. bon dama bëgg encore revenir rek si lenn. xam nga si discussion yi nga xam ne si lañ doon arrêté fixation de de de de de de caution yi. Mm-hmm. demoon naa si réunion bi ak le ministre de l' mm-hmm. mais franchement foofu proposé woon naa nañ def un million. parce que tey jii li ñu def nii fixé affaire bi ak quinze millions vraiment ñi ngi. ñu ngi interdire ay citoyens que ñoom ñu exercer seen droit de citoyenneté. am que tey am na sax ko doon wax léegi léegi ne loolu dafay. voilà voilà voilà man hmm. très bien man amoon naa yéene ak pas-pas ngir jéete mairie Dakar plateau bi comme ça après ma dem Dakar. Hmm. mais tey jii bu ñu nee à quinze millions ñun marchand ambulant ñu ngi cotiser marchand ambulant bu nekk cinq cent. Hmm. fii ba boobu yàlla mun nañu dimbaluñu matal mais par A ou B si kattanu yàlla bëgg nañ bokk. ndaxte mairie yi nga xam ne ñoo fi ba tey. amuñu benn programme si Dakar liggéey ñu Dakar ñu Dakar ñoom seen liggéey rek lan la. Hmm. liggéey pire marchand ambulant yi. te kenn du leen recadré foo xam ne fu baax la. ñun na comme on représente soixante quinze pour cent de la population. Uh-huh. les marchands ambulants et les tabliers et le secteur informel restent debout. Hmm. la grande coalition du secteur informel dog buumu gàcce yi. Hmm. dirigé par Sayer Tambédou. ma gagné mairie ah, Dakar plateau bi gagné ah, mairie Dakar. Ah, ñu avancé ah nag lii nag. waaw merci Seydou Nourou merci jërëjëf te yàlla gars moom Abdou <laughs> kenn mu leen <laughs> fexe ñu wax yéen ñu xuus cee ne salaam. Seydou Nourou Ba ça va. maa ngi lay ziar alhamdulilah. Ousmane Gabon. ana ngi fi alhamdulilah macha allah. dem bisimilah. ma ne Seydou Nourou. de moom sa damay delluwaat Fuuta rek. Mm-hmm. Seydou Nour passé passé na waa Fuuta yi ñu ngi jànkuwanteel lu metti Seydou Nour Ba. fan ci fan ci Fuuta. Barobe Jekel. Mm. Salde Barobe Waastaake Hakkun Maaje seulement. waaw. Mm-hmm. am na ñoo xam ne seen oto yi xoolal bu njëkk ba Seydou Nour. Mm-hmm. bu taw amul dara amul. ah taw baaxul woon. suuf moo fa nekkoon. bu taw amee. ñu yokk paas yi cinq cent léegi tali yi dañ kaa defar ba mu baax Seydou Nour ba léegi cinq cent la ñu fay. Hmm. xam nga loolu. Ah, dafa cher dafa cher dafa hmm. cher. yow bu njëkk ba da ngay wëri da ngay wëri wëri wëri wëri. Hmm. dem ba duf ne gànde jaar foofu nga fay cinq cent laa la wax. xoolal léegi président dafa defar tali ba mu baax. Ah, mooy de cinq minutes nga jógee baro ba egg pete. moo da wàññeeku cinq cent encore. waaw xoolal. lu gën a métti tamit ci kanam ñaar nit lañ fay def. ci ginnaaw ñeent nit lañ fay def. xam loolu dafa metti oh, waaw te tamit boo ñëwee pour. wala oh la xam naa li muy woote pétrole loolu tam ci la Abdou Thiam waaw lu mu doon wax nag lu am solo. nga ñu ngi noonu rek salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sama sëriñ na nga def. man euh, la papa. kii de sëñ Mor Niang bu rajo Mbacke fii ci Mbacke Bari la. ana waa Mbacke Bari la. ak waa région de Louga bi yëpp ñu ngi leen di di leen ñaanal jàmm. amiin amiin amiin. di ñaan rek suñu borom subhaanahu wa mi yore jàmm nag dara la ko doyul te nooru yàlla dolli ñu jàmm. ba pare tasaare ko ci mi. amiin amiin di ñaan yàlla na yàlla yokk jàmm ci. amiin amiin. mais dañu toll ci jamono mbay fi mu toll nii fi may wax yow nii. Mm-hmm. ay ay gunóor ak ay yeneen kii daal moo ñu bëgg rek rey fii ci région de Louga bi booy dem bala nga egg Daara Jolof. Hmm, wax ah. nañ ci wax nañ ci ah. wax nañ ci sax ah. waaw man wax nañ ci man wax nañ ci wax nañ ci ñetti fan yi weesu. waaw waaw ñu ko yokk ñu indiwul poudre bi def ñu hmm, dara. Hmm. donc euh, la preuve ba nekk mbéykat dañuy bay bëgg a am dara. rawatina nga ji gerte ba pare wala nga ji dugub ba pare wala nga ñebe ba pare mu dem ci Malick Foro. xeetu sax yi la sax yu. waaw sax na mais xam nga dafa am nji mu mag ak nji mu ndaw. njëmu mag mi moom mënul duñ ko dara presque. Mhm. te ñooy ay benn benn la woon mais ñi nga xam dañu mujj ji ci mhm. taw bu mujj bi. Mhm. loolu moo tax actuellement nii euh, gunóor yeeg yooyu ñëw di ko jël si ne ak ay araw luñ ko tuddee. donc loolu ñu ngi ko jël si jërëjëf Louga may ñaan vraiment euh, le préfet bi dëkk fii. mu dimbale ñu andil ñu ay moyens soit ñu pompé ba pare bu ñu wax lu ñuy fay baykat yi wala ñu leen ko. ñu pompé leen tool yi. mën naa ne mën naa ne benn fii ci jërëjëf Louga bi waaw suñu tey Louga Linguère boobu Daara Jolof toujours ma kaas ko fii village bi maanaam dem ba Touba jaari ba door ñëwaat Linguère mhm. da nga def soixante quinze kilomètres de euh, Daara mhm. defaat soixante quinze kilomètres pour ñëw commune bi Thiamène May mën a may mhm, doole defaat égal quarante cinq kilomètres pour def si Louga ah, xoolal boobu biir rek te yow lépp lépp lépp deux cent deux kilomètres mooy Louga Dakar ah, mais ñun vraiment fatigué nañ sëñ Nooru dañu dimbale ngir jëm yàlla dafa ñu teel benn budget def nañ trente neuf effectif bi néewoon yëpp yóbbu nañ leen. Hmm. président na xool gars yi mu jox sant yi. ñàkkul ma ngi koy dégg mais bu dee seen nuu daan rek jox ay nit ba pare hmm. Hmm. ñu naqari la. tey loolu waaw dëgg am solo bu dee am na ku nekk ci ligne bi Abdou salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar waaw. sant yàlla alhamdulilah. maa ngi la woowee Bissau. sant alhamdulilah. bisimilah. Euh, man daal suñu commune bi la bëggoon a wax mooy hmm. commune ba commune de Diama. Hmm. dégg parce que problème bi ñu yor mooy problème bi ñun suñu village. village yëpp am courant sauf suñu village ñu amul courant. Hmm. mooy village yu ngat. dégg nga loolu daal moom mooy sama préoccupation numéro un. dégg nga parce que ñun a fi courant bi nekk motu sa trois trois kilomètres. dégg des années ñu ngi top ci ginnaaw Sénélec bi nekk Saint-Louis pour mu jéem ñu. xool lan la ñu mën a def ba hmm. indi ñu courant mais ba léegi mënuñu régler suñu problème hmm. te élection yi ñu nii di ñëw te ñun am nañu bureau de vote bu nekk foofu ci ngat hmm. dégg nga te dañoo bëggoon ñu fexe ba fexe ba lijjanti ñu ndax ñu am courant dégg nga parce que ñun ci Sénégal lañu bokk dégg nga te ñun kenn kenn gënuñu yeloo ci dëkk bi dégg nga ah ak lu munte demee nañu dimbali ñu am courant ñun tamit comme ñëpp village yëpp am oh là là oh là là euh, dafa mujjee dokk Abdou asalaamaaleykum allo alo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi bi. maa ngi lay bu baax. bisimilah. waaw allo. waaw waaw ñu la déglu. waaw. ñu ngi lay bu baax. ñu ngi lay delloo nuyu bu baax. est-ce que nekkul rajo bi nga nekk ah. xanaa da takk ay écouteur non non takkuma écouteur hmm. wala fekk daa rajo bu nekk sa wet waaw waaw waaw wàññi ko loolu la kon waaw bisimilah waaw Ousseynou Fall Kolla moo la nuyu Seydou Nourou Ba nuyu ma leen dool nuyu hmm. surtout sa famille bi yëpp jërëjëf man de li ma toujours wax si wàllu courant bi rek hmm. euh, vraiment village yi yi di seen courant bi amuñu courant waaw man dem vraiment ngi dégg dafa am certain vraiment di waa affaire central bi. Hmm. centrale bi ñun centrale bi man maa la gën a jege centrale bi. Hmm. waaw te centrale bi yaakaar naa centrale fu mu nekk terrain boobu. Hmm. suñu paar ñoo jox maire pour maire bi jox nguur di mu def ko journal. vraiment affaire boobu man waxuma wax politique. man xamante ne c'est la réalité moom noonu laa wax. vraiment nguur yi nañu nañu wàcc ci village yi. ñu xool. situation bi nu mu demee. situation bi dara doxul si wàllu courant bi ak si wàllu mbéy bi. Mhm. surtout Fuladu. Mhm. lu bari ay wax la mais dara doxul. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam noonu la de kooku ko gàttalee baax na moom salaamaaleykum bu dee mën na gën a gàtt dina baax lool salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay bu baax. ziar bu baax Abdou ana waa Bambey. ñëpp a ngi si jàmm <laughs> waa waaw Guy Ndiaw ñëpp a ngi si jàmm baax a baax. Ah, ñaari point rek laa doon ñëw ah. ci ah. affaire maire yi. ñu lay déglu. parce que tamit mënoo ne cib dëkk di campagne waa gox boobu yëpp ànd ak yow. Mhm. mais li rafetul mooy nga tan dëkk yoo xam ne ànduñoo na yow bi ngay def campagne. Mhm. di nga gañee nga daal di leen beddi daal. Mhm. lépp loo xam war nañ kaa mu jóge ci maire wala ci nguur gi. nga daal di leen ka xañ yow mii maire bi. loolu moom na ci meer yi bàyyee xel bu baax parce que amul kenn kuy def élection ñëpp ànd ak ñoom. cent pour cent mënut nekk mënoo mënul a nekk kon kan ak. Mhm. Eh, ku àndul ak yow tamit am xamal ne àndul ak yow mais nag li mu war a am jox ko ko. Mhm. deuxième point bi mooy man mënuma imaginer ma nekk maire. Mhm. wutal la kayitu juddu. nga nekk ca gox ba. ba man ma am soxna ba am doom sama doom encore ñu déclaré waat ko ci sa maire kayitu juddu fekk yow yaay maire ba ba léegi. nañ xoolaat ci mandat yi te xam ne nguur gu dul jeex gu bu yàlla amul. nit ñi nañu seetaat seen bopp ci yooyu. maa lay sant bu baax waa Pencoo yéen moom du ngeen paanal réew bi doxal bu baax a baax. <laughs> jërëjëf ah mooy suñu jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Abdou Sarr di euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam. mu ngi lay ziar. Seydou Nourou. ma ah. lay ziar bu baax. man de la bu baax. di ziar waa groupe Futurs Médias ñëpp. Ousmane Ka Medina Bamgol. an ah, ana waa foofu. ñëpp si yam baax a baax di rafetlu liggéey bi. jërëjëf ay bisimilah. Seydou Nour ñun de li ñuy jooytu mooy wàllu réseau. Mhm. réseau téléphonique. Mhm. ñun zone bi fi réseau def fi am problème bu bu rëy rëy rëy mhm. muy Medina Bamgol Siringel Depere Daale. ñukki Ruube yëpp presque fii yoon yi fi nekk bi fi nekk village yi fi nekk yëpp amuñu réseau muy Free bi nag muy Orange ñëpp moo si bokk yëpp. Hmm. bu fekkee ñu ñuy dégg jàppale ñu ñu góorgóorlu côté bii nii am nañ problème réseau bu baax a baax a baax. ñu ñu ngi koy déglu de RFM ñëpp a koy dégg ñu ngi koy bu baax. waaw loo moo tax ñu yéem nag pour jaar fii pour ñu dégg ñu ndax affaire bi yàgg na torop. Hmm. te xoolal euh, Seydou Nourou tey ñu ñu ne la tey yaa ngi nekk si dëkk boo xamante ni munoo fa connecté wu am téléphone mënoo fa connecté wu internet. Hmm. loolu dafa metti waxuma la dara waaye appel fa pour nga jël ko ko fa wala nga wootee lu ne ngay daj pour wootee téléphone hmm. nañu jàppale côté boobu baax a baax a baax xaama nag waa dakaar la wala waa région Louga la wala waa département bu Linguère ñooy yëngu ñooy ñuy jàppale suye waaye ku si mënta doon moom bu ñu déggee nañu si jàppale hmm, commune bu Affé Jolof la département bu Linguère hmm. village bu naan Medina Bamgol Medina Bamgol jërëjëf waa kay jërëjëf waay Seydou jërëjëf merci beaucoup di nuyu ñëpp jaajëf jaajëf Abdou asalaamaaleykum ñu ngi lay ziar bu baax mën nga yëkkati baat bi tuuti. alhamdulilah ñu ngi lay nuyu tey déggu ma la baax de xam naa fi nga nekkee la yëkkati baat bi tuuti allo gis nga ah, allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar soxna si. man maa ngi tudd soxna Mariama Sow di la woowee Tambacounda. ana waa Tamba. ñëpp a ngi fi ñu ngi si jàmm alhamdulilah. bisimilah. jërëjëf lu rek waxtaan bi. jërëjëf. man moom xam naa ba léegi ci mbirum yokkute bi rek lay wax. ndax xam nga ñun ñun soxna yi loolu moo ñu yitte. te bëgg naa itam soxna itam na ngeen di jóg di ñaax di wax. di dugg mhm. ci penco di wax. Mhm. ndax yéen yéen la teg dépense seen loxo te marché bi métti na. dëgg mhm. dugg di wax seen xalaat. ndax ñu mën a gën a yokk dépense yi. waaw di gën a ñaax rek euh, lu ñu mën a jàppale rek ci euh, wàññi te dina dina baax surtout Tamba nga xam te ne jege na Gambie. te suukar dafa cher fii. lépp a cher fii Serigne Noor. da ngay dem marché da toog dangay jël ban toog doo xam sax looy def. Mhm. foo laal day metti foo laal day cher. Mhm. ah bu ñu mën a jàppale xam naa ne moom dégg naa côté parce que maa ngi journal ne côté Dakar wàññi nañ mais fii mhm. dara wàññeegul. ni mu mel ba léegi noonu la mel. ah Dakar fii sax am na foo xam ne lu yàlla xam doy na. ah fii de moom ñun ñu ngi bëgg a ñun moom ñu ngi bëgg a daw Tamba moom boo bëggee dégg-dégg. Tamba nga xam te fii la gën a waaye actuellement saag bu ndaw bi saag cinquante bi fu mu toll nii mu ngi ci quatre mille franc. quatre mille franc lay jar ci marché bi. lu ma doon jar. ay deux mille yooyu la doon mhm, jar deux mille mille cinq cent yooyu actuellement ñu ngi ci quatre mille. Hmm, ma wax dëgg yàlla sonn nañ lool Tamba moom amatul dara de bu ngeen bëggee dégg-dégg rek. Hmm. dee la ñu geesu nag. yàlla baax na. Ah, ñu gëstu nag. nguur gi waaw. <laughs> waaw gis war nañoo ah. gëstu bu baax. yàlla baax na yàlla ah, waxtaan bi. jërëjëf Sow jërëjëf. ziar waa kër di nuyu waa Tamba jërëjëf ñëpp lay dégg fi mu toll nii day taw nii. waaw taw xéwal la jërëjëf. wallaay wallaay yàlla yàlla taw xéwal incha allah. amiin yaa rabbal aalamiin amiin jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup Abdou bu dem na keneen ku nekk ci ligne ba. salaamaaleykum waaleykum salaam. Nourou. copain la Adama Dieng la. Adama Dieng maa leen ziar waaw ñu ngi fi ñu ngi sant bu baax. ñu ngi si jàmm yéen a ngi waajal waaw ñu ngi ci wàccaay li démb la première fanu safar bi. yàlla nekk ak jàmm incha allah. waaw ñu ngi ñaanal yàlla yàlla defal jàmm. ñaanal xalifa bi yàlla yàggal ko fi. amiin amiin amiin yàlla jëlee fi mboolem jafe-jafe yi ci réew mi nit ñi jàmbat yëpp yàlla mën na ko. amiin waay. waaw man nag antenne libre bi saa bu ñëwee rek sama xel dafay dem ci Kajoor mais ah. avant tout dama doon def euh, benn alerte. Mhm. par rapport ak euh, hôpital bu bees bi nga xamante ni le ministre Abdoulaye Diouf Sarr hmm. gis nañ benn texte ñu ni président daf ko war a inaugurer le 18 bi di ñëw hmm. vraiment mu nekk nag fierté bu am solo boo xamante ni département Mbacké yëpp ñu ngi ko doon xaar hmm. ndax kenn ku ne xam na ni Seydou Nourou faj dafa am solo ci ci réew te population bu Touba soxla woon nañu hôpital bu mel noonu kon vraiment ñu ngi ci féliciter le président de la République di ñaan euh, benn yóbbante boo xamante ni population bi dañu ko yóbbante man personnellement mu nekk sama xel muy turu hôpital bi ñu tuddee ko Serigne Sidi Maxtaar loolu moom wax dëgg yàlla waa Touba ñu ngi koy xaar te bu amee dinañu neex lool mm-hmm. bu loolu jàllee nag antinibre bi saa bu ñëwee sama xel dafay dem ci Kajoor may mm-hmm. fàttali rek président Macky Sall Kajoor mm-hmm. ndax kenn ku ne xam ne Seydou Nour Kajoor dañ ko sanc lu jiitu à mille cinq cent quarante neuf ba nëgëni te ba nëgëni nii may wax yow am na fa ay dëkk yoo xamante ni am na ñett téeméeri at mosu ñoo gis ab lampe tàkk président Macky Sall nag dafa am dafa am programme bu ñu wax équité sociale démb rek maa ngi ko dégg muy wax ci programme mi la ñoom ci leen si boo nga xam ne koy def ak Sénégal mm. alal ji ci jot a nekk mu ne lépp dañ ko war a fas yéene joyal ko ci mm. nañ ci góorgóorlu mm. mbaam gàtt na waaye ci jur gi la ngi koy doxal waaye ñun dégg loo liggéey seen loxo nañ ci gaawal maa ngi koy bu baax a baax courant bi nekk ci diggante dalax ak Kër Daaw Gaye commune bu Mérina Dakhar maa ngi koy fàttali bu baax a baax yoon bi jógee ngaay jëm Touba yoon boobu yàqu gi métti na yoon bi jógee ngaay jëm Baba Garage yoon bi jógee Ndande jëm ba Njembe ba jàll wax dëgg yàlla maa ngi ko fàttali hmm. maa ngi fàttali président Macky Sall daal Kajoor wax dëgg yàlla bëgg naa mu mu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a a baax hmm, hmm. jërëjëf jërëjëf Adama jërëjëf di nuyu waa Touba yëpp Abdou Thiam bu am na kenn